bàyyi leen ñu wax lu leen neex gisaguma lu ñu war a tere dem di ma yëg xajul ci ndab du jeex kee wax ko bu mu yàq kéré dem Leuz Diwane yi ne place to be abonné sur Sénégal Plus dinay xewe